def législative def législative mhm. mais euh, tey jii euh, Mame Birame ma des ci yow euh, élection législative ci pouvoir bi doogay maître bu doogay toog amagul sax at ay quelques mois est-ce que du risque quand même surtout nag élection boo xamante ni configuration wax nga ko am ay opposants milliardaires ñuy jógee ci pouvoir bi ak ñeneen ñoo xamante ni tey jii mën nañu bokk ci élection parce que amul benn contrainte du parrainage du dara est-ce que boobaa du wala du doon risque ci pouvoir bi nga xamante ni moom moo fi nekk. xam nga balaa boobu sax dama bëggoon mm, par rapport ak euh, li Ibrahima wax ne am na politique mhm. euh, te ma d'accord ci lu mu wax mhm. que am na politique mënuñoo wax ne euh, amul benn benn politique lépp dañ koo teg ci expliquer non li tax mu mën a am politique te ñu mun ko comprendre mooy quand même naka la ñoom waa Bennoo Bokk Yaakaar ñu dem élection yi passé am seen candidat seen candidat bi ñu duma ko au premier tour ñu regroupé wu au niveau de l' assemblée nationale ne gouvernement bi nga xamante ni dañ ko fay teg comprendre pouvoir bi sénégalais yi voté bu yàggul dara moo ko fi teg ñu ne dañ koy daaneel kooku soo nekkee président nga am ay article yoo xamante ni permettre nga empêcher leen loolu mais da nga koy def nga empêcher leen ko. bu neexee nit ñi nag ñu ne politique la ak loolu mais man je trouve que ay Abdou Mbow consort ay Kouramaki elles ne ils ne sont absolument pas légitimes pour. di fi jëlee euh, gouvernement bi nga xamante ne nii pouvoir bu bees moo ko fi teg ñoom déjà sénégalais yi ba ñu demee élection. législative yi yàgg na deux mille 2022 la woon mun nañoo waxoon ne booba même si mun nañu wax lu bëree bëri bëri ci élection yooyu mais 2022 la woon ci diggante bi ay eh, élection amaat na te Benno Bokk Yaakaar bi ñu porté couleur yi moom moo amoon candidat dem mhm. sénégalais yi ne leen ànduñu ak yéen lii la ñu bëgg donc loolu ñu sénégalais yi ne moom la ñu bëgg naka la ñu mën a tegee ab gouvernement yéen ngeen jóge fa leen ne da ngeen koy bëgg a suuxal. loolu amul benn logique amul benn cohérence <laughs> léegi par rapport ak euh, euh, euh, contexte bi. oui man jàpp naa ne fii moo baax justement pour le pouvoir puisque. Euh, engouement bi nga xamante ni moo ànd ci euh, moo jóge ci vingt 24 mars bi. Mhm. sénégalais yi ñoom ñëpp ñu si bëri bokk jógandoo dem voté li pouvoir bi loolu waruñu bàyyi muy am lenn loo xamante ni dina ko sappe si diggante bi. Mhm. donc dynamique boobu nga xamante ni moo poussé sénégalais yi 24 euh, mars ba ñu voté le président Bassirou Diomaye Faye à 54 pour cent ñoom bu ñu sañoon du ñu sori. date boobu de sorte que benn mouvement daanaka lay doon ce qui Euh, euh, euh, popularité bi nga xamante ne ni moom moo leen conduire à ce que ñu gagné élection yi mu poussé leen à ce que ñu am le maximum de députés pour man côté boobu y' danger li nekkoon danger bi kay mooy ñu ne dañuy bàyyi ba deux ans. si diggante bi lu ne mën na xew. nit mën na ñoo mere pouvoir bi ni pouvoir bi si boppam mën na def ay coup mm-hmm. donc tout ça mënoon na nekk ci diggante bi nga xamante ne ni bu doon seen électorat 54 pour électoral. Mhm, mhm, mhm. alors Ibrahima euh, euh, tey jii le 17 euh, septembre 17 novembre moom la élection législative yi di am contexte bi ma laaj ma mbiram ci yow ñan nga jàpp la gën a favorable opposants yi wala ñi nga xamante ne ñoo nekk ci pouvoir bi jamono ji. bon je pense que ci contexte bi moom li ñi mu gën a favorable mooy mooy mooy mooy mooy pouvoir bi mooy pouvoir bi donte mën na am décalage entre. entre peut être score bi ñu am à la présidentielle ak score yi nga xam bi nga xam ne euh, moom la ñu am législative euh, te loolu aussi foofu aussi il faut remarquer que ne euh, je crois que le système n'est pas n'est le même eh, le système pour la présidentielle ak le système pour les législatives ci kii bi maanaam ci répartition bi dafa day xaw day day day xaw a wute damay rappelé wu rek en je ne sais plus en 2001 ou quelque chose comme ça. le PDS, la coalition SOPI avait eu 49%. Malgré tout, ils avaient raflé le maximum de députés. Ils avaient une, une majorité écrasante. Euh, donc, je pense que euh, timing, bi, le, bon, c'est, le, le pour nous, c'est le bon timing. Le contexte aussi leur est favorable. Maintenant, euh, vous voyez, nous, bon, peut-être nous tirer de leur épingle du jeu. Euh, surtout que ce sera une élection ouverte euh, avec la décision du na ne Euh, règles yi nga xam ne moom moo prévoir en en 2002 donc mm-hmm. yooyu rek la ñuy reconduire jaratul ñuy def ay euh, parrainage jaratul ñuy def euh, donc caution bi yaakaar naa la le montant la caution bi ñu fixé woon pour 2022 moom la ñu c'est le même montant qui sera qui sera reconduit donc 15 donc le même montant de 15 donc je pense que peu de choses près peut-être que la majorité de comment dirais la majorité présidentielle. war ci war na mën a euh, tirer son épingle du jeu de cette élection là. élection législative concerne uniquement les euh, politiques euh, ñi nga xamante ni ay sénégalais nañu nekk ci société bi am nañ ci sañ-sañ mën nañu constituer seen liste est-ce que bii la contexte dina favorable oustaz ci ñi nga xamante ni tey jii politique ñu te bëgg porter baatu askan bi fële ca assemblée waaw loolu itam euh, benn problématique la mais toujours diggante summeeku ak solaat daal il faut yaramu leen oh. <laughs> il faut il faut il faut mu am ci te pour gën a wax loolu sax euh, li nga laaj euh, li nga laaj aan léegi mm-hmm. daanaka mooy nekk réponse loolu nga nga nga laaj maanaam kii bi anticipation boobu maanaam li li ñu ko defee le 17 mm-hmm. novembre mm-hmm. kan la gën a arrangé dama jàpp ñi nga xam ne sénégalais yi nga xam ne waxoon nañu ne dañu bëgg soppi. Mhm. dañu bëgg soppi jël ñoo xam équipe boo xam ne jàpp nañu ne équipe bii moo leen mën a footballal seen marché bi bi ñu bëgg. Mhm. Euh, sénégalais yooyu xëy na lépp loo xam ne dafay ñàkk équipe boobu di ko aar ñoom bu ñuy tànn ci moment bi nga xam ne ñu ngi am wóolute ci ci équipe boobu ba léegi jàpp naa ne luy luy luy jëm ci wàllu woowu lay doon. Mhm. xëy na nag bu ñu bàyyi woon bu ñu demoon ba mu bàyyi ba mu gën a yàgg ni mu gën a yàggee rek. xëy na peut-être mën na am euh, yeneen mbir yoo xam ne mooy tax ba ñu changer opinion boobu. mais mais mais oustaz tey jii euh, comme changement bi ñuy woote mooy euh, ñu wàññi politique ak yooyu tey ñu mel ni oustaz yi est-ce que bu ñu amee seen liste dem ci assemblée booba est-ce que askan duñu ànd ak ñoom pour rupture bi ñuy woote ñu mën ko am ci biir assemblée ba. man de dama jàpp ne dama jàpp sax yëf yi warul nekk benn secteur nga ne. ñu nga xam ne ñooñu diine. wala mais mhm. Sénégal ku mën a defar Sénégal. ak foo mën a dëkk. ak noo mën a tudd ak loo mën a métier spécialité boo mën a am. yow kooku la ñu soxla. li Sénégalu de 1960 euh, bi fi nekkoon daal nga xam ne Senghor. dañu ko tànnoon waxuñu ko ne kaay jiite ñu ci jumaa ji. Mhm. bu doon loolu keneen la ñuy tànn. mais ñu ne kii kat liggéey kii dañu bëgg a pax moo xam ne kii war na ko mën a gas. Mhm. am na doole am na piquet bu bu am doole kaay gasal ñu fii. logique boobu la ñu war a continuer ba léegi di di di di di di di ko demee ci Sénégal. Mhm. kan moo mën a jëlee Sénégal ci point bi yóbbu ko ci point bu ko gën. loolu jàpp naa ne moo tax ay parti yoo xam ne day am coloration telle chose wala telle chose. Mhm. yooyu xëy na ay dagaanukaayu baatu askan wi la. mais li am solo finalement daal mooy. koo mhm. équipe boo xam ne ñoo xam ne mën nañu. Euh, teg Sénégal ci raay bi mu war a tegu. loolu moo war a nekk principe bi kon jàpp naa ne daal loolu mën na bañ a nekk option. pour ne pour rupture bi daal il faut nit ñi gëm li wala moom. Mame Birame une plateau de risque nekkul risque. non non du doon risque de toutes les façons conseil constitutionnel xam naa day def comme nu ñu defoon en 2017 rek wax ñu jël euh, cinq listes maximum. pour le reste minimum minimum. waaw euh, ah, minimum non maximum. maximum nga jël cinq quoi. maximum doo dépasser cinq quoi. ok ce qui fait que. waaw minimum maximum ah. je crois c'est minimum ah. <laughs> waaw cinq bu la neexee la neexee nga jël 47 yëpp bu dee 47 liste. mais le minimum minimum minimum incompré mooy nga jël 5. Mm. waaw 5 waaw donc c'est le minimum. Mm, tout à fait donc noonu rek la ñuy delluwaat ah léegi nag peut-être compter zéro virgule zéro virgule yi coono lay doon. boo xamante ak bulletin yi dul jeex. ak bulletin yi dul jeex. mais xam nga li ñuy wax rek la démocratie moom à un coup. à un coup gars yi xataraayu ne mm-hmm. dañuy bokk remplir critères ne doo leen bokk. Mm-hmm. Mm-hmm. jaajëfal bu baax a baax moom Mame Birame Wathie di jaajëfal aussi oustaz Assane ak Ibrahima Anne le maire de